itam saa bu ñu xëy rek dañuy faral di xool yenn ci euh, kër ëttu yéenekaay yi muy li ci gën a fës ngir rek euh, daal di koy dégtal mbokk yi seetaan Eye Africa TV na pàcc bu ci mujj euh, di li gën a fës ci yi tey nag am nañ fi yenn ci kër ëttu yéenekaay yi ci réew mi di Foria am nañ fi itam Point waaye itam ni ki koy defee bu ñu jeexalee yéenekaay yu réew mi dañu jéggi dem ci jàll frontière bi am fi yenn boobu itam daal nañ fi am yenn ci yéenekaay yu Sénégal yi dinañ ko nag di firi fecce jox ko ñu seetaan waaye laata loolu nag ñu njëkkee euh, yi nga xam ne rek mooy yu réew mi maanaam bay say wóomi tànk bokk na rek ci Forea Forea moom xëy na bind lu am solo ci euh, xarxanam bi su ko defee rek ñu daal di koy ëñ euh, xool buñ ci njëkkee bokk na nag ci jàpp nañu wala teg nañu loxo ñeenti nit démb rek ci ba ñi nga xam ne ñooy alkaati yi dañ doon rek daal di dindi nit ñu ñuy toog wala sax taabal yi ñu teg ci kaw yoon yeeg woto yeeg cantine yu ñu fa samp te war ko fa samp ndax yoon santaane ko police nag démb lañ ko door jàpp nañ ci nag ñeenti nit ñoo xam ne dañu doon jéem a fipp wante ak euh, alkaati yi ci rek jamono ji ñu doon amal seen euh, liggéey ci Joswang ñu wax euh, ci leneen ki nga xam ne nag moo nekkoon. finance director bu euh, Basse Area Council di Lamine Suso moom nag daal dina nangu ne euh, manager bi ak ñoom dañ daan rek jël euh, li nga xam ne rek mooy dajale galak maanaam rek collecte revenu ci rek weekend yi ata nag duñ ko daan rek jaarale ci yoon noonu nag daal dina ko nangu ci ba muy janoo kuréel gi nga xam ne mooy lu ñutu nguur yu suufee yi maanaam local government commission bi foofii la ko rek eh, daal di eh, nangoo ñu wax ci leneen eh, fore yaa xëy moom it di waxaat ak ñun ci Sénégal moom lu mu lu ñuy xamalaat wala di ñu ko fàttali mooy rek Ousmane Sonko di njiital kujje gi foofee noonu nag doonoon tamit ki nga xam ne mooy njiital langu Pastef ga woon maanaam ex Pastef moom nag mi ngi ci xiifal maanaam rek delluwaat na ci hunger strike bi nga xam ne rek mu ngi ci woon. ñu wax euh, ci leneen Amadou dañuy tëj Foria ubbi Poyen Poyen moom it xëy na euh, bind lu am solo ci xarxanam ngi su ko defee rek ñu daal di ci ëñ aslëf baaxee ko bokk yi si daan ay Afrique bokk na nag ci euh, nguur gi nag daal di ñu yóbbu ci yoon Alaaji Keeba ngir rek lu jëm ci wàllu lii di économique crime ak nag càcc yi loolu la ñu teg ci ndoddam li daal nañ ko nag yóbbu ci yoon ci wàllu woowu des na ko yaatal ci xibaaru benn waxtu yi ñu wax ci leneen nguuru Gambie gi nag ñoom i daal nañu fekk si eh, ñenn ci kilifay àddina si ñu dàq li nga xam ne rek mooy cong gi Israël di amal ci kaw Gaza ñoom nag génn nañu ab saabal maanaam statement point euh, li nga xam ne mooy point xëy di ñu ko waxal di ñu leen ne nguurug réew mi daal dinañu rek dàq cong gi nga xam ne ñu ngi koy amal ca kaw Gaza rawatina itam nag cong gi xam ne amal nañ ko ci ab raglu maanaam hospital foofa ba faat fa lu toll ci juróomi téeméeri bakkan ñoom nag daal dinañu euh, dàq euh, mbir mi di wax rek ñu daal di koy dakkal euh, ci nu mu gën a gaawee ñu waxaat ci leneen point dikkaat ak ñun ci ki nga xam ne rek moo doon moo nekk maanaam ex finance director bu rek ba Bassirou Council moom nag daal na nangu ne rek amal moom daan na ko rek def moom ak ñu mu ci daan àndal nag ca base Iria Council loolu nag daal dina ko xamle ci janaw ak ñu tu wàll wi Amadou niki ni ñu koy defee saa bu ñu xëyee bu ñu ndar keppee li nga xam ne mooy yéenekaay yu réew mi ba noppi dañuy daal di bëtt frontières yi ginnaaw ay Africa TV mooy bëtu Afrique day daal di jël bët bi xool ko fu ne tey mu xool ko biir Sénégal di ñu indil benn yéenekaay bu tudd L'Observateur ñoom nag daal dinañu bind ci seen xarxanam gi yenn ci rek ay xibaar yu tukkee ci senegal su ko defee ñun ñu comp ci aslëf Afrique baaxee ko ñuy seetaan ay Africa TV euh, dafa mel ni ñoom ci Sonko lañu rek daal di ñëwaat di ñu xamal ne lan moo waral euh, kuréel gi nga xam ne mooy saytu wàllu élection euh, ca Sénégal muy DGE nanguwuñu rek daal di ki nga xam ne moom la Sonko yebal ngir mu daal di jëlil ko li nga xam ne moo di rek ngir parrainage maanaam nomination papers yi ñu daal di ko koy rek bañal wala bañ sax mu daal di dugg waaye l'observateur nag daf ci xam lu kenn xamul dafa xam le ne ba tey Sonko dugalaatu guñ ko ci li nga xam ne mooy fiche électorale yi ñu ko génne woon muy électoral liste yi nga xam ne dañ ko ci génne woon te ki nga xam ne mooy euh, attekat bi santaane woon ngir ñu delloo ko ci ba tey gars yi defuñu loola moo waral nag mënuñ ko rek jox li nga xam ne mooy nomination paper ngir mu bokk ci yi Mame Boye Diao nag moom jafe-jafeem fu mu toll mooy nu muy matalee li nga xam ne rek moo di parrainage maanaam nomination pour ñu nominer ko ngir mu mën a rek doon ab lawaax maanaam candidate loolu nag mooy métti itam Amadou